ñu retrouver ak public bi. jërëjëf Assane loo ndekkee. Ah, non <laughs> dëggal bu bàyyi tooy. maa leen di wax ne leen ah rek ne ba ngaa seeti sa ah, maanaam sa sa wala wala sa place wala dara wala kër yooyu di lépp dina baax si kàttan yàlla man maa ko. numéro yi ma leen di jox numéro yi ma leen di jox benn bi mooy 78 la 539 84